nañu dégloo nag ngir gisee dolli ci ma xam la xam na sëriñ Tuubaa dëggu na ci yow boobu laa la bëggaloon sama bopp nga sëriñ Tuubaa boobee ak sa bi bii xam yow eh, adduna nag moom la suñu boom bind nii bindu nu nekk ci àdduna xëy na kër kër du ci a ñàkk te it kenn ku ñu la yàlla dogal ci moom il faut que mu fekk fekk mu yëngatu bëgg nga xam ne bëgg Sëriñ Tuubaa te muy dëgg te yàlla tax moo gën àdduna ak li ci biiram wallahi wallahi wallahi bëgg Sëriñ Tuubaa muy dëgg ngir yàlla moo gën àdduna ak li ci gouvernement yi ci bëgg Sëriñ Tuubaa te muy dëgg moo gën moo ci ci dund moo gën nit ki dundam képp jox gouvernement yi yëpp jox ko adduna ngi si biir lu booy jëriñ fi ne rek coono rek jaaxle rek <laughs> tiis rek <laughs> képp dund gi moom lay doon ba jeex dégg nga noonu bu santal yàlla dëgg la loolu lii yëpp yëpp la xëy na nattu la yàlla lim mu dogal ci nit ki rek faaw mu waaye liy dëgg yàlla dafa wax eh, adduna bu fekkoon tey moom mi ko bind moom ko da ko yemale woon ak laafu yoo laafu yoo maam mu yemale adduna ak laafu yoo bu fekkoon ne na ko bu ko yemale adduna ak laafu yoo du ci am kaasu ndox bu mu naan da ci lépp yéen ma ne mu ngëneem la ngëneem la waaye yàlla mooy dëgg li mu wax mooy dëgg waaw <laughs> exemple mooy Serigne Touba mm-hmm. biñ ko gisee bañ gisoon buñ ko gis noppee gis gis bëggu fi dara gisu fi dara nekku fi ci dara lu lu borom ko noppee gis loolu mooy dëgg waaye nag yàlla mooy defee nii itam ci coobareem waaye yàlla nañu yàlla gindil boppam te xiir nu ci boppam ci xiir nu Serigne Touba lii rek mooy wax ji na ma la bëggi woon xam na sëñ Tuubaa dëggu ci yow ma bëgg la ngir sëñ Tuubaa xam ne sëñ Tuubaa na ci yow ma bëgg la ngir sëñ Tuubaa dara ci ba ci sa jotaay bi loolu rek moo la moo la fi nekk waaw xanaa wax ni sama wax du si bari dama doon ñëw di sant ci sëriñ bi mayuma sax ma wax moom moo waxal boppam wax fi mu toll si fi mu toll si moom ak fi mu toll sëñ Tuubaa kon man sama wax du si bari maa ngi koy sant bu baax di yeesal sama taalibe di sant sëriñ bi di sant population Touba yépp jërë ngeen jëf. ñëpp a xam ni. Tout le monde sait qu'aussitôt après les, les résultats, j'allais venir sur Touba. J'avais décidé de venir remercier le marabout, mais surtout réaffirmer mon appartenance à la communauté mourite. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Le marabout, en des, en des termes très émouvants, m'a manifesté des sentiments forts qu'il nourrit à mon endroit. Vous m'avez vu fondre, en larmes, tellement que l'émotion était forte, je n'ai pas pu résister. Donc il ne me reste que de remercier, des Mourides, réaffirmer mon appartenance la communauté mouride et dire que je suis talibé, je l'ai été avant d'avoir une ambition. politique avant d'entrer en politique et je continuerai toute ma, toute ma vie à être un talibé mourite. Je remercie les populations de Touba et remercie voilà. tous les leaders qui sont venus vers moi. Merci.